Guerrière ga fa ci ndaje ak ñoom ak ñu mel ni ñoom ak ñi nga xamante ni ñooy organiser élection ci euh, diwaan ga euh, du lu leen yay la mu wax ak wéeruwaay ñeel euh, loi parrainage ba tey Pastef ngi wéy di am yàqiit ne dana ko taxawal rek ngir galgal yi adversaire politique lamin Ba fan yii ni weesu nag li nga xam ne nag na fi ngir waxtaanee li nga xam ne nag moo di modalité pratique yi parrainage ki nga xam ne nag xel ñoom sax jàpp nañ nga xam ne moo di parrainage bi njiitu réew mi da ko taxawal ngir tere yenn ci am ñoo a bokk ci li nga xam ne ñu dëgmal fexe bay jot ci li nga xam ne nag moo di seeni signature yi ci campagne ñi nga xam ne nag ñu ngi koy dégg ci ay ndaw mu jëm ci wàllu financement Raphaël Sonko moom moo yore kàddu gi Pastef bu Ziguinchor. ñu ngi doon comprendre lan moo tax bu ñu paree assemblée nationale ñu daal di wàcce dans tout le Sénégal promettre nit ñi kaay la ñu financé leen kaay la ñu financé leen indi seen kayit indi seen kayit ndekete yoo kayit yooyu ñu laaj ay financement fu ci nekk numéro carte d'identité dañ ci soxla woon ndaxte parrainage yii euh, li tax nga parrainé sa carte d'identité ngay teg nga signé te comme ñoom fu ñu nekk nii jot nañu am carte d'identité la plupart des sénégalais fu mu nekk nii. yooyu la ñuy jël bu waxtu bi jotee ñu plagé ko yow bu fekkente ni que même bu fekkee ni que tu n'as pas l'intention de de de de parrainer paire. na da ko parrainé par la force. ba taxna ma nga yëkëti ay cadeau di sakku ci opposition bi nga xam ne nag mu ngi yeewu fii ci wàllu Ziguinchor ñu bolé seeni loxo ngir mën xex pexé bobu nga xam nak nguur gi lal nako ak ay ñoñam. opposition locale de l'heure pour que ñu tok autour d'une table ñu xalaat ki action bu ñu am ak lan lañu wako def. coordination régionale bu Pastef nag jamono ji ñu ngay lal ay pexé ngir mëna bok ci li nga xam nak nag di campagne de collecte de signature bi nga xam nak mom lañu dëgmal ci walu wowo sax fas nañu yéene nañu jox ki nga xam nak nag di Ousmane Sonko genn wala gi nga xam nak soxla na ko ci signature yoyu Lamine Ba Radio Futur Média. Lamine euh,